Alle doyal jëfandikoo na la yonent ba ba ko Seex Mustafaa yebal fii jëfandikoo na la yonent ba jëfandikoo woon ba muy yebal Usaamata ibnu Saydin ca Rum bi ko fa yebal te mu am 18 ans te mag ñi nekkoon fa mu dem fa ba xeex ak ñoom duma la moom tam nekkoon première puissance du monde ci doole jamono Seex Mari bi mu dikkee fa liggéey bi mel noonu la fi liggéey lu mu ko fu mu ko teg inni ujaahidu bil ulama bi tuqaa Seex Mari moomu nga xam ne daana bay toolub gerte am ponkal taxaw ci penku ponkal taxaw ci sow kenn du gis sa morom mu ne waat naa ci yàlla ne bu ci kenn yëyul benn doom lépp jox naa ko sëñ Tuubaa kooku ngeen ñëw ci dëkkante Cheikh Madina mi daan def loolu ba pare te bu daan fóot lu mbub mam sol day àbb mbub mum wuutoo kooku ngeen ñëw fii tey Cheikh Madina mi ñoo ñëpp joxoon seen bopp tam fii këram gi bu Tabaski masaan jot taalibe yi ak ña ko sañ ñooy rey ba noppi may ko ay ay ay fàllare ak i baat mu di ko jëfandikoo xarum tabaski bu fi amee ñu jël ko yotti ko sëñ Tuubaa kooku mooy moom ngeen ñëw ci dëkkante lu mës am jox na ko sëñ Tuubaa te loolu siin gépp a ko seer mu nekkoon ko amoon jàmm ak kilifa diine yëpp amoon jàmm itam ak ñu si nekkoon parce que ay buur siin la fi fekkoon buur siin bi rayoon Maba Jaxu dematul 200 kilomètres fii buur siin bi fi tombé woon ak ak ak ak ak ak moom te muy mayekoor matu fi matu fi deux kilomètres kon ci diggante ñaari buur la nekkoon ñëw fi ci ndigalu Sëñ Tuubaa ci dëkk bu lëndëm ci jafe-jafe yu metti kooku rek ngeen ñëw ci bàkkam lii day lu tuuti ci lu mënta bàyyi ko ci lu bari waaye bu ngeen dee set as gor as la ko bokk ak Sëñ Tuubaa ca ca ca ca ca ca ndumbe sànqe ak mata safura kamara bokk ak Seex Mamadu Mustafaa kokkeeg ndaam di doomi soxna baayam di di ma di ibra maamam baayam di maxtaar marema maamam di xaar xaadi ma di ibra maamam yëpp dañoo sanc ay dëkk taal ay ah ay dëkk taaloon ay taal jàngu kooku nga ñëw ci dëkkante waaye lépp da koo jël joxaatan ko nag sëñ baax te damay wax ne nit ku baax da daan toju xur dem te tund samp fa kër ñuy liggéey di jàng bu wér koo fa jur mu xam la ko wax li nu yóbbee problème te yóbbu ko l'islam te yóbbu ko Eh, sa àdduna bi bépp mooy déggatoo fi kuy toju xur dem te tund samp fa kër yow nag ak gëléem ak i xar semb am juróom di ca gaar te loolu daan def te lu ma sa bay Sëñ Tuubaa la ko kooku rek moo nekkoon ki ma leen doon wax maa ngi jéggalu góor njaay xam naa la xam naa karawaan bi du ma xatal du ma guddal du ma gàttal laajte naa bi ngeen daataan ñëw xam naa ne xat ngeen te gàtt ngeen waaye dañ leen a mënutoon a bañ wax lu tuuti pour ñii bu ñuy dem yóbbaale ko xam ne day xataay bee tax fii wërtoon na doon fi ñu jaar suñu waroon toog la waxtaan lii parce que daa war a bokk ci ñu ñuy jël di ko tudd dafa bokk ci kàngami sëñ Tuubaa yi nga xam sëñ yi sëñ Tuubaa di damoo ndax moom da daan damoo Seex Madiba te sëñ Mbàkke soxna loo ko jële fii ne ko indi ko sëñ Seex na ko boo tabaxal foo dëkk mbaama tabaxal la ko mosu koo nangu mos a nangoo takk seen doom mos a nangoo lekk seenu ñam mos a nangoo lekk takk seen soxna mos a def loolu liggéey jox leen daana toog fii ne man li ma am man dong maa ko am addi yu jóge Tuubaa romb loolu dong man dong maa am te fi lu ne fekk nako fi lu fekk seigne touba ci géej gi lu ci bari fekk nako fi. Maton na naa sant nag siin ko te kagn ko te ko karawan bi waron nañ ko xam mak ñu melni dañu mata mat net li mbiri gaay yu bax ya way leen man na waral seeni sahaba roy leen ma ngi leen di jégalu lu tuté ngok ci lu bayiko ko ci lu bari waye ñi ngi leen sant tey xam ne Touba moy kenn seigne Touba dong dong mo demoon ndar kabar ci bir biro ba melne ne ak gar borom ndarit ragal ko seddu ko cër bur yalla jox ko ndam ya lu ne Cheikh Bamba dong dong nga dem merba fek borom ndar mer ba mer di xaru nagam gaynem ga melni xar nagam wa juru bur yalla jox ko ndam ya yóbbu Salatul saadatul xudur xaafilatu magel sayid Mouhamad Mbacke wal wafdul murafiq بإذن من الخليفة الشيخ محمود سلة وكافة إخوانه الكرام وأحفاده وأتباعه أهلا وسهلا ومرحبا بكم في خرية Ndofane Mouride gan ñu tedd ñi سيدي المختار Cheikh Sidi أك njiitul cheikh Mouhamadul Muntaqa Muntaqa ak cheikh Mouhamadul Bachir mi jëwrini màggal gi sëriñ Mourou Mbacke si mi nga xam ne moo jiite liggéey bu tedd bii muy karawaan di màggal ak sëriñ Qaadi ma Qaadi Jaxate ak kilifa yi mu àndal yépp sëriñ Mahmoudan si sëriñ Mahmoudan Silla xalifa cheikh Madiba ak rakkam sëriñ Mahmoudan Daaru Razaq ak Serigne Mokhtar Serigne Modou Habib ak Serigne mbake Mouhamed ak mboolem ay doomam Serigne Abdou ak Serigne Bachir ak mboolem sëti Cheikh Madiba yi ak taalibe yi ngi leen di dalal jàmm ci dëkk bu tàdd bii ñuy wax Ndofane Mouride di pàkku Cheikh Madiba Sylla Euh, Cheikh Madi Basilla kenn la ci jàmbaari Serigne Touba yi nga xam ne ku teel a ànd ak Serigne la di koo xam ne mi ngi bokk ci mbaakol ci xam-xam ci ngoor ci juddu ci ak ragal yàlla di boromi bokk sëriñ Muxtaar Marème Sille waajuram ak soxna Fatima ne Diop waajuram mi ngi bokk ci ñaxal waajuram wu jigéen mi ngi bokk ci kokki mu gënee àddina ci 1886 taqriban teel a wattu alquran teel a jaar ci fi doomi soxna di jaar jàng xam-xam bi muy ànd ak sëriñ Touba ci lu matul ñaar fukki at la ànd ak sëriñ bi fekki ko gànnaar ginnaaw boo xam ne waajuram jox na boppam sëriñ Touba ba bi sëriñ Touba demee ci géej gi ba ñibbisi mu terale ko gane ko fukki fan ak ñaar yoo xam ne mboolem kàngami mbàkkoon yépp foofee lañ fekk sëriñ Touba ñu ci ëpp fa lañ gannaaw ba la tax kilifa yi bari jébbalu foofee la soxi ko moo ànd ak sëriñ bi foofee ca gànnaar ba sëriñ bi jot koo yewwi ba mu koy yeewi mu wax ne jaar ci Cheikh Mouhamadou Moustapha ne ko damaa bëgg nga waxal ma sëriñ bi ne ko damaa bokk bëgg a bokk ci ñi fiy des ngir booba barab ba metti na tiis na mu ne ko li sëriñ bi daj nga di ko daj njabootam ngi di ko daj loolu laa bëgg nga waxal ma sëriñ bi ma toog fi di ko daj te booba bari na ñoo xam ne bu ñëwee ziyaara sëriñ bi bu ñu leen yeewee dañuy ñibbisi keroog sëriñ bi wax na ne am na ci moom yaakaar bu baax a baax seeral pëstéef boobee nag moom la ànd ak moom ba ca ci yéen moom la àndal ba ni mu ñëwee njaareem ba ni ko Serigne Touba yabalee ci waajuram ab diir ba ni mu sancee daaru ndindi ba ni mu nekkee ànd ak Cheikh Mouhamadul Moustapha ci di ko liggéeyal ci nekkuk sëriñ bi nga xam ne Serigne Touba seexal na ko ba ba mu tàmbalee am mbooloo waye mu gis ne njaareem barab la bo xamne bu xumbu la te bu lu bari ay pakk la jamono yooya mu ñëw fekk Cheikh mustafa ñu toj àll xur wu nga xamne moy euh tundu Naydeek ak dëkk yooyu nga xam ne moom la sëriñ Cheikh Ahmad sëriñ Mouhamadou Moustapha sanc te ay cheikh yu bari ànd ko moom mboolem dëkk yooyu nga xam ne sëriñ Modou Moustapha sanc na ko ci njëlbeenu sëriñ Touba Cheikh Madiba ànd na ko moom ginnaaw bi nga xamee ne itam sëriñ Touba radiyallahu anhu ñibbisi na Touba te fekk buur sin ku mëndoofeen waxoon na sëriñ Touba ginnaaw bu mu amee ak moom ak kóllëre ba dem njaareem ziyaara ko te seere woon ko seere su sa jébbal ko aw fasu naaru góoram am lum daalanteeg Serigne Touba ci koo xam ne dana ñëw siin wooteel fi suñu borom subhanahu wa ngir indi fi lislaam ak waxanteeg sëriñ bi na nga xam ne noonu lañ bëggoon a jaare lislaam te ñuy ay jàmbaar di ay buur yoo xam ne yu fonk seeni cosaan lañ di ay garmi kenn mënu leen a taxañ ci benn fan rek te am ñu ñëwoon doon jaar ci seen kaw ci benn fan ñu wane seen doole wane seen ngoor loola du ak bañ lislaam ci ñoom waaye jaay doole guñ leen doon jaay doole te ñu yor ay dereti germi doon moo tax ñu dal ci seen kaw ba ñu doon jaarale yoon woowa mu juñ ci am ndam waaye bi mu ci diisoo sëriñ bi ba sëriñ bi amoon naali kum fi yebal ba waxtaan ceeg Cheikh Mouhamadul Moustapha ci mu ñëw fi baa mu yebal yebal fi yebal fi ku ko doy ci ci cent vingt 1928 xam nga sëriñ bi vingt 1927 la génn àddina at mi ci topp ci la Cheikh Mouhamadou Moustapha dogu ci indi fi ku ko fi wóotu ci loolee nga xam ne Buur Siin daalante woon na ko sëriñ Tuubaa ci barab bi te Cheikh ma Moustapha galfan ba munta ñëwal boppam mu yebal fi Cheikh Madiba Silla mu ñëw fi fekk fi buur bu ñu wax Mayakoor mu ñëw jànkoonte fekk ay jafeñ-jafeñ waaye andi fi ak jikko yu rafet ànd fi ak xikma te suñu borom dafa wax ne ud'u ila sabili rabbika bil xikmati wal maw'izati al xasana wa jaadilhum billati hi ahsan bi mu ñëwee dafa ëndaale ak dal ak ay jikko ak muñ lépp lu mu fi daj ci ay mettit mu muñ ko lu mu am ci ay teraanga bokk ko ñu fi ne waaye di diisoog ñoom xeebalut kenn soxlaam xeebul kenn kenn ku nekk wàccuwaay bala yàlla jox mu jox la ko jaxasoog buur bi di seexub Serigne Touba nekk fi yor mbooloo moo xam ne Serigne Touba moom ba noppi muy dem di liggéeyal buur bi ngir maslaha di contribuer ci dund gi nga xam ne moom la société bi doon dund doon donte ko booba ñëpp maase wuñ doon ay jullit waaye mu contribuer ci seenu dund ci jàmmam ci socialam te loolu lu lislaam nangu la ndax ci jamono Seydina Omar radiyallahu anhu am na benn yahud bu ñëwoon ci Seydina euh, Omar ibn Khattab jàmbat ko ak ñàkk dañ ko doon dimbali ci biir seen jullit ñi te booba du ab jullit waaye solidarité bi bi nga xam ne lislaam jàngale na ko ci wormaal mag ak ci euh, convaincre nit ba mu dugg ci lislaam loolu wala mu àllafata xulubuhum sax islaam da ko wax bokk na ci ñi ñu war a jox azaka mooy koo xam ne jàpp nañ ne buñ ko dee jox ci cër ak di ko jox alal ak di ko fonk mën naa dem ba mu jàgg mu jaara ci dugg ci biir lislaam kon sëñ sëñ Madiba dafay ñëw indi fi ak taalibe waaye indi fi eh, diine ju sëkk ak jikko yu rafet andi koog ñi fi nekk ba mayakoor moomu mujj ko jox loxo may ko ci boppam lu bari yaatal ko fi waaye recommandé ko an ñi fi dëkk ñëpp ba tey jii siin benn mbooloo la ci mbooloom Serigne Touba tey jii gox bi ñu nekk bu ñuy limaale lislaam dañuy bokk ci kuréelu jullit ñi waaye bu ñuy lim mbooloom Cheikh Ahmadou Bamba tey jii siin da ci bokk ak mboolem dëkk yi fi nekk te loolu mi ngi amee ci liggéeyu Cheikh Madiba la doon bëgg-bëgg boo xam ne tam diggante Serigne Touba la woon ak Buur Sine Coumba Ndoffène loolee di nisar soo xam ne si Cheikh Madiba moo ko àggale yàlla dogal itam mu doon koo xam ne sanc na ay dëkk yu bari sanc na Daaru Ndindi door a ñëw sanc fii ci Ndofane Mouride sañ ci daaru rahman sañ ci saadatu sañ ceew ak daaru razaq mboolem dëkk yooyu nag amu ci benn dëkk bu mu ci sanc lu dul ne la fa liggéey lii sëñ Ahmad Diong wax ne suñ bayee tool yi ba mu àgg buñ mënee waat ne benn doomu gerte amul ku ko ci yëy ñu mën a waat ne li Cheikh ma di ma liggéey lépp jox la ko sëñ Tuubaa ndax wax nañ ne Cheikh Mouhamadou Moustapha dafa amoon ci moom yaakaar ak wàccuwaay goo xam ne ci kanam Serigne Touba la tàmbali ndax day doomi ndeyam wala day mbokkam sëñ Mouhamadou Moustapha day doomi ndey sëñ Matar ñoo bokk am néeg néegu sey waaye moom day doomi ndey sëñ Ahmadou Mbacke Gaynde Fatma ndax wégij la Cheikh Ahmadou Mbacke ak Cheikh Ahmadou Bachir bokkoon am néeg kon dafa bokkoon ñoom ci deret bokkoon ñoom ci lu ñu jomb bokkoon ñoom lépp lu ñu bañ waaye bokk ñoom di doomi soxna ba noppi nag nangoo wàcce boppam doon am murid saadix te al muridu man laa yamliku shay wala yamliku shay bala nga nekk murid dara du taxaw ci sa kanam doo taxaw ci kanam dara dara du la baare lu dul ngërëmul yàlla rek ngay wut te soo àggee ba am ngërëmul yàlla sax doo amati kenn bëgg ndax ngërëmul yàlla mooy li ëpp lépp dootoo yëg bànneex dootoo yëg coona ku ànd ak yow sax dana xaw dee dana xaw dee ndax étape bi nga toll day wuuteeg bi ñu toll te faaw da nga jàpp ne da nga leen caa war a yóbbaale moo tax ci dëddu Cheikh Madiba moom dañ ko war a bàyyi xel kenn la ci seexi Serigne Touba yi koo xam ne ni mu doon dunde néewaana nga waxtaane histoire rajo yi ah néewaana néewaana ngay waxtaane kenn ci seexi seriñ Touba yi ku doon dundee ni mu doon dundee nettali nañ ne wàllum tabaski ak kori te loolu lu jafee tëla ci ñàkk koo mën a ñàkk koo mën def waaye àggoon na ci tàggat waa këram bis yooyu daana wax ak ñoom ci waar leen ak ci delloowaat leen ci liggéeyal Sëriñ dajale alal ju bari joo xam ne lépp da ko yët jëwrinam ci kër Serigne Touba waaye bi su kori sax àgg na ci am na kor yoo xam ne ceebu keccax lañ koree ci këram ci koo xam ne lépp a ngi daje ci yow moo tax Serigne Touba dafa wax ne képp koo xam ne seerañ leen la ak dëddu te baatu dëdd booba du lu nekk ci yow te muy dëgg Serigne Touba nee na lépp tedd ngay àddina ak àllaaxira daje daje na ci yow kon Cheikh Madiba lépp tedd ngay àllaaxira ak àddina daje ci moom ngir ak zahid la ku dëddu la koo xam ne ak dëddoom njabootu Serigne Touba gi ñoo ko mën a seere doomam yi ak sëtam yi wax nañ ne a Cheikh Mouhamadou Moustapha bi muy tàmbali fondement jumaa ji ci ab liggéeyam bokk na ci ya gën a jiitu ya jiitu ci liñ fondement jumaay Touba te boobee ba ni jumaay Touba àggee amul dara lu mu fi ci alal du ab tool du gànjar du luñ ko jox lu dul ne loolee yëkkati ne ko jox ko Cheikh Mouhamadou Moustapha bañ defal ko ko ci jumaa yi nga xam ne wenn ñàkku taalibe jëddut fenn te loolu am solo la ndax sëriñ Touba nee na woon jumaa ji ku ci raw jiitu nga ba faw te kenn dutu la dab kon nag lu waay mas a jox Cheikh Madiba ne la wóor na la jëddut ndax Serigne Touba dafa digli woon ci jumaa ji te taral ci wax ne su ngeen ko defut àgg na ci jinne yi dinañ ko def bu jinne yi gàntoo ni nit ñi gàntoo àgg na ci munta ñàkk ba malaayika yi dinañ wàcc def ko kon nag ñi am fii tawfiix amal ko seen jëwriñ bokk ci ñi ci gën a ràññiku mu wóor leen la lépp luñ joxe dara jaddu ci mi ngi ci jumaay Sëriñ Tuubaa yi ñu war a sant yàlla bu baax a baax te dafa am borom xam-xam bu wax ne wa ulmul muridi fi inqiyaadin li kaamilin lahu xibratun fi l ilmi wal waqti wal xaali bokk ne ci sens ci ab taalibe mu am kilifa gu mat kilifa kilifa goo xam ne doo dem ba gis wala sa xel dem ci kuréel ku gënal te Cheikh Madiba ñi nga xam ne moo nekk seen kanam yépp amu ci kenn koo xam ne sa bët Cheikh Modibo buuru ko ba noppi sam xel jëlu ko maanaam occupé wul sa lépp ba tey jii man ngaa fàtte ñëpp man ngaa ñàkk xam ñëpp Cheikh Modibo képp mooy moo doy sëkk ci sa lépp te doo ko wecc dara te loolu lu jëf la ba ay taalibeem yëpp seeral ko ko ay soppam yëpp seeral ko ko euh, ci tënk rek Cheikh Moussa Ka dafa wax wax ju rëy Modou Ba Silla sabaxal kibaara maa sigaari fa huwa laa yubaara nee na Modou Ba Silla ña ko jiitu woon ci ay mag ci kanam Serigne Touba ñëw jox ko seen bopp nee na jiitu na leen mu Moussa Ka wax nag nee na ña ko jiitu woon di ay mag jiitu na leen te nee na ndaw ñi war a maase moom nee na maanaam ñoom mënuñ ko jot mënuñ ko jot daal ne sax fa wallaayu baara du mag du ndaw sax fa wallaayu baara du kenn kuy jamanteeg moom aw xel al mubaara yaakaar naa ñu dégg arab xam nañ ko al mubaara mooy rawante jogante dara nee na Cheikh du ndaw du mag du ku ñuy joganteel du ku ñuy joganteel te loolu yaakaar naa Cheikh Moussa ko bu ko waxee nekk fi te yaakaar naa demuñ ko demuñ fa di ko neexal yaakaar naa Cheikh Madiba demuñ ko di ko neexal kon daa seet la yàlla def rek. moom moom wax ko kon moo tax eh, yéen eh, sëriñ Mouhamad Mbacke si su ngeen àggee ci sëriñ bi sëriñ Mahmouda nee na na ngeen xam xamal na ngeen ko fàttali ni ngeen fàttali sëriñ bi sëriñ bi xam na ko na ko fàttali nag sëriñ Mahmouda mii ak ay rakkam ak ay doomam ak i sëtam sëriñ Tuubaa lañ fi nekkal ñoom sëñ Madiba jaay gim jaay. léppam jënde ko ngërëmul yàlla woor fii ci àddina te fas yéene doge ji fële ca teraange suñu borom yi ci kanam sallallahu alayhi wa sallam Sëriñ Tuubaa nee na ci biir jaayante googu rek lañ tàbbi ñoo amuñu tànn nekkaluñu fi seen bopp Cheikh Madiba rek lañ fi nekkal te Cheikh Madiba moom dafa jaayante woon nekkalul boppam Sëriñ Tuubaa rek lay nekkal loolu na ngeen ko gën a yeesalaat ci kanam kilifa ga te loolu tàbbal na ci doomam yi tàbbal ci mboolam ay taalibeem sëriñ Madiba Serigne Cheikh Sylla moo ko njëkk a wutu di jàmbaar yoo xam ne ñi ko xamoon xam nañ ne Serigne Madiba dafa ànd rek mu toog waaye pëste fa la doon doxee ba jóge fi Serigne Bachirou noonu moom itam fa Serigne Cheikh jaaroon rek fa la nekk ba Serigne Baara ñëw Serigne Baara itam amut. fenn fu mu tànn fu weesu fa magam yu baax yooyu jaaroon mu jaar fa ba sëriñ Mahmoudan mii fi nekk tey ñu ñaan mu yàgg fi te wér moom it bi mu ñëwee foofee ay magam jaaroon te sëriñ ma di ba fàkkoon ko foofee la nekk ak mboolem njaboot yi di kër goo xam ne genn kër la ci kër sëriñ Touba di kër goo xam ne mi ngi ci biir kër Cheikh Mouhamadou Moustapha waaye sëriñ Touba la fi nekkal tey moom la fi nekkal ëllëg te du deltu ginnaaw ci loolu mukk te loolu nag waxaale na ci doom yi ak taalibe yi ñoom ñëpp def nañ wenn say topp ci ginnaaw sëñ dan ak ay rakam loolu daal ci gàttal mooy kàddu yi nga xam ne moom lañ doon tënk waajaloon nañ lu gën a gudduli sax waaye ginnaaw dañoo nekk ci ak yàkkamti te kilifa itam jotaay bi metti na ci ñoom te ay mag lañ xër ci sëriñ Tuubaa rek moo tax ñu génn suñ yebaloon seen doom yi mu doy waaye nag ñoom duñ du wàcc mukk ci liggéey sëriñ Tuubaa moo tax ñu génn àndante jataay bi kon ñu tënk kàddu yi foofu di ñaan suñu borom yàggal fi sëñ dan ak sëñ dana Daaru Razaq sëñ Muxtaar ak sët yi yëpp yàlla dafa leen tawfiq hada assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu bismillahi arrahmani arrahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على أسرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخديمه أمتي أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مبكي جليدي مبكي طالبي نيجي لين دي نيو تي تورو سيرن توبا شيخ سيد المختار اك تي تورو جوري نيام ييغا خامني موم لا تك تي كانامو مبولومي موي شيخ محمد المنتقى ابن سيد البصير ak cheikh Mouhamadul Basir ibnu cheikh Abdul Qadir ak cheikh Abdul Ahad Mbakke ibnu cheikh Ahmadou Mbakke Gaynde Fatma ñu boole ñu ak sëriñ moodu Mbakke si muy jëwriñu yoon wi kon sëriñ Mahmoudan nu yóbbu Serigne boobu ak bokkam yooyu ñu ngi koy teg ci sa loxo. nga jotalal ko ko njabootu sëriñ Madiba Silla yépp ak nu ci nit jaboote rek ah, mu mel ne nag li ngeen wax sànq moo ci nekk bu fekkonte ne ndaw dafa mën a agsi ñu gis ko mu kon barab bii dama naan fi lu tax moy jëmmi karawan bi bi ko kilifa yi xalaatee te di ko wax sëriñ bi bañ ko ko tàmbalee junji lam ca yëg mooy kon daal mel ne fëggewaat gilini sëriñ bi fu sëriñ bi nekkoon ñu fëggewaat gilin ya xamb ko soññ ko fii nag dafa mel ne taal bi fi nekk mi ngi tàkk ku ñuy xambaloob taal nag boo demee foo fekk muy tàkk moo tax ma ne kon bu ndaw ma noon bu agsee rek xool wàññiku kon dañuy xool rek wàññiku buñ demee ne sëriñ ba ndoofaan murit de moom jërëjëf kon kàddu yi du mën a ñàkk rek ñu yëkkati ko waaye na ngeen xam ne ñàkk gim ñàkk a mën a ñàkk waaye loolu la kon sëriñ Mahmoudan ñi ngi jotal ab nuyoo bu baax di ko jotal njaboot gi yëpp damay bañ a juum nag tudd ñi ma ci xam rek bàyyi ñeneen te ñi seen kilifa moo tax ne bari na ñu ma ci miin waaye su ma nee nañ jotal njaboot gépp rek moo gën a mucc kon serigne bangi nuyu ñëpp te di leen ndokkeel ah, Ahmadou Jong nak tay defena liñ doon bëgg def mom far mel ni lool yi jaran jarna ci mourid jog dekk lu ko tank yi nak tay nonu mako waxe sank sànq eh, Cheikh Sidil mukhtar pas-pasam moy mboolem foo xam ne taalibib sëriñ tuubaa nga fa pas-pasam moo doonoon fekk ko fa saafoonteeg moom jaajëfal ko soññi ko ci liggéey bi bi jenn jëmm mënut lool yi tax euh, at mu nekk mu sàkk ay ndaw joxañ tund sàngam ne jëmal leen ma fa taali sëñ tubaa ya fa nekk ngeen soññal ma leen te fu ngeen fi romb taalub lislamik ngeen jokkal ma bokkuk diine yi fii di taalub Serigne Touba boo xam ne moom waxuma man mii wax ak ñi ñu àndal waaye gan gu fi ñëw keneen ku fi ñëwoon tey ganit dana yomb mu xam ko dana yomb mu xam ko e, sëñ Fallou Sylla wala sëñ Ahmadou Jongo am na ci ko wax léegi sëñ Madiba Sylla ca mbaakol di doomi soxna joo xam ne lu ñuy wax ci ci réew mi rek ci doomi soxna ma nga ca moom ku xamut loolu nag te gis laxasaay yeeg taalibe yi da ngay ne looloo ko booleeg Bàmba jeeg diine ji waaye fekk nañu xam moom xam nañu bu baax loolu eh, mu mel ne it am na xaas ci Sëriñ Tuubaa xaas ji mooy ku tàmbalee ab liggéeyam ci sëriñ tubaabam wér na liggéey na te wàccut ba liggéeyal sëñ Mbàkke soxna loo diir bu yàgg loolu ñi am tawfiix yu baree noonu yu tegaloo noonu bariwut te ñi ma ko gënoon a miin liñ ma waxoon ci moom mooy gannaaw Cheikh Moustapha dafa jaajuwaat bañ defee ne kii dafa jàpp ne lam lam njëkkoon a liggéey daa nanguwut gannaaw sëñ Touba dafa jaajuwaat bi Cheikh Moustapha ñëwee waaye jaaju boobu kat bi mu ko salaatee ci sëriñ Cheikh lañ ñi ko xam door a xam ne kii day bindam waaye ndekki juumutoon nga xam ne am na ñoo xam ne dañ ñëwoon kii daal moom xamuñu woon biram ndax lim defoon ak sëñ Touba ba noppi seex Cheikh Moustapha ñëw mel ne ku defagul dara bi sëñ Cheikh ñëwee te fekk mi mag ba noppi mu jaajuwaat jaaju googa ba jaajul ko sëñ Mbacke soxna nag ci lañ xam ne kon moom dafa yëg ne. ak ruu mu ngi yëngatu rek daa war di liggéeyal sëriñ bi loolu waxuma la moom waaye ku mu yar sax ci lañ ko xam ku mu yar sax ci lañ ko xam eh, ba tax kon sëñ Mahmoudan li ñu fi wax rek dafay gën a jëm ci soññee bi nga xam ne sëriñ bi mi ngi koy soññee ci njaboot gi Eh, ngir njabot yi gëna bayyi xel loolu ànd bii fi am ak déggoo gi ki war a jiitu jiitu ki ci war a topp topp ci kaddu gi di genn loolu lu ko itteel la lool ndax dafa wax ne su demee bay woo mbokki julit yi di wax ne bëggatumaa dégg murit bëggatumaa dégg tijaan ab julit diine ji lañu war taxawal kon moos biir murit gi taxut muy wax te biir murit googu kat ku xool bennoo fa ko sëriñ bi dugal dana la ñor lool ndax la sëriñ bi jiital door ko caate koo seen muy dem bëgg na ko yaa rabbi ijaalil muridina maa fii isnikal xasini wasam la ijmaa sëriñ tubaa dafa ne suñu boroom maa ngi lay ñaan murit yépp nga tàbbal leen ci sa tata jute ji nga xam ne ku ci dugg raw murit yépp bëgg nañ caa dugg yàlla nañ dugg ca biir ñun ñépp waaye bi mu ko waxee nag daf caa teg ne ta nga ta nga boole leen benn li leen dank leen ba ñu nekk benn te fekk loolu mu ñaan moom la suñu borom digle waxtasimu bi hablillahi jamia wala tafarraxu innama almuminuuna ixwatun fa aslihu bayna axawaykum kon sëriñ bi di soññee ci bennoo googu bennoo nag foo ko fekk jërul laaj ndax kilifteen nga fa wala kilifteen nekku fu kilifteen nekkul duñ mën a yoon wi nañu xam ne jëkku fi te gënu fee néew doole lu ko may loolu baatub kilifa kilifteef rekk kon kilifteef sëriñ bi nee na mi ngi koy feddliwaat kilifa yi nañ cay taxawe nañ ca war a taxawe te njaboot gi topp leen ca mooy lépp mooy lépp l'islam dafa bëgg aw yoon ñett bu ñu àndee sax nañ jël kenn ci seen biir def ko muy kilifa ak yoon wa ñett nit bu ñu di tukki l'islam dafa bëgg ñu tànn ca kenn def ko muy kilifa ak yoon wa kon kilifteef googu ñu bàyyi ko xel bu baax a baax bàyyi ko xel bu baax eh, waxtu wii ñu toll it ba tax mu yebal ndaw yii bokk na ci li ko ñor tamu di di ca fàttali muy màggal gii ñu jëm di fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar sëriñ bi wax ne bis la boo xam ne ñun ñëpp liñ ci bokk xam rek mooy bisub sëriñ bi nga xam ne sëriñ bee ko santaaneel boppam moo ko digleel boppam ba mu koy digle it digle wiin wa ndax ñun ñëpp mën nañoo maase wat ne lépp sëriñ bee ñu ko defal lépp ginnaaw sëriñ bee ñu defal lépp nag ba mu des lenn mu sant ñu ko loole moom war nañ ca góor góorgóorlu bu baax a baax leneen lu mu doon sëriñ bee ko def ba juboo ca ak boroomam ba mucc muccaale ñu ca bi bis bii dikkee te boroom defal ko ci li mu ko li mu ko ci defal nag bi mu ko yëree xam ne li ci war ci ak cant lott na ci ci la waxee ne koo xam ne sama mbég sa mbëg la fu la bis bi fekkat nag ma ca sant la yàlla sama boroom sëriñ bi nee na mi ngi fàttali waxi sëriñ boobu yi waxi sëriñ boobu yi tey fàttali jëmmi bis bi ci boppam ñu xam ne mooy bis bi nga xam ne bi mu amee li sëriñ bi bëggoon ci boroomam lépp li donga di wut ci sëriñ bi lépp ci bis bi la ko yàlla defal lépp loolu sëriñ bi bind na ci ay bindiin yu wuute waaye am na bisit muy waxtaan ak sëriñ Amsatu Jaxate ba ñu wax ba tudd fukk ak juróom-ñett ci safara sëriñ bi ne ko moom day bis la boo xam ne tubaab yi sax takkoon nañu ko ba xam ko ba nga xam ne bi mu nekkeek ñoom ci liggéey bi saa bu bis bi dellusee lu ñu ko tegoon ci ay coono ak i metit ak i tartar danañ ko yokk lu ëpp fukki yoon mu ne na xam moos sama borom it noonu la daan def ak man lim ma daan jëflanteeg man ci yaram wi daana ko ful fukki yoon moom tamit ci ay metit su bis boobu dellusee sëriñ bi wéy di dunde noonu yi ak ñoom diirub géej gi diirub gànnaar diirub céyeen ba lu bari ci njaareem ba ci ama am sa sin 1321 mu xëy bisub fukki fan ak juróom-ñett ci safar di séentu natt yooyu nga xam ne diirub ba mu ko tàmbalee ba tey saa bu dellusee boroomam teg ko ci natt yooyu mu xëy di ko séentu am ci lu muy sangam ba rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam dikkal ko jaajëfal ko sant ko indil ko jaajëfi boroomam ak cantuk boroomam ne ko li taxoon ngay liggéey lépp lépp lépp ba dara desut sa boroom defal na la ko bis ni ci tey lépp nga xam ni bisub keroog bu sëñ Tuubaa déggaatutoon yàlla gisaatoon yenent bi du tee mbiram aajoom faju aajoy dong yépp faju ndax li mu bëggoon lépp defal na ko waaye mu ne sëriñ Amsatu sama boroom nag daf caa dolli saa bu bis bi dellu seetee loolee mu ma defaloon tam faj aajo yi daf koy ful fukki yoon joxaat ma te bu njëkk ba rek fajoon na ajo mbokk yi foofu am na seetlu seetlu ngeen ne ci njalbeenug wax ji bi sëriñ bi di nekk ci nattu bi saa bu bis bi dellu si woon nattu ba dañ koy fal fukki yoon teg ko ko mu muñ ko ba déwén ñu fulaat la fa nekkoon fukki yoon mu muñati ko ca muñam gu rëy ga waaye bi pay gi dikkee tamit ba ñu fay ko lu faj aajoom bu dellu seewaatee lañ ko fayoon dañ koy fulaat fukki yoon jox ko man daal defe naa ni lu waay tëlee tëlee jàngat bu doon sëñ Fallou la sax mu xam ne kon ñu nit la ñu war mooy luñ màggale ren bu déwénee ñu ful ko fukki yoon màggale ko sëriñ bi ak boroom noonu la doon def ci bi ko tubaab yi nattu saa bu màggal dikkee dañ koy fukki dañ koy ful fukki yoon tegal ko bi mu koy fayit saa bu màggal dellu see dañ koy ful fukki yoon lu tax ñun luñ màggale ren bu déwénee duñ ko ful ba muy fukki yoon kon sëriñ bi nee na nañ bàyyi xel loolu ndax moom kat bis la boo xam ne lu ca nit daj jar na lu ko ëpp ndax sëriñ Abdul Ahad dafa wax ne ajjana amuti guddee ki bëccëg jant yi fenk kaso waaye saa bu ñu fa nekkee ba waxtu wi ñu daan màggal ci àddina jot la ajjana doon neex neex ak lam doon rafet rafet suñu borom dana yokk taar ba ak neexaay wa ba ñépp ne moo liilum doon ñu ne ba ñuy nekk ci àddina waxtu wi lañu daan màggal Tuuba kon bis boobu jar na lu ne Cheikh Saalix yàlla na suñu borom dolli ay leeram nee na Sëriñ Tuubaa wax na ci màggal gi ne fu fi ñaar dende kee di ko fonk kee di ko ñàkk fonk ka koy fonk du noppee gis lu muy jiitoo ka koy ñàkk fonk kon yal nañu suñu borom dimbalee fonk màggal gi bàyyi ko xel bu baax a baax waajal ko lu waajtaay wi teel tol du doy lu mu rëy rëy du doy lu tax sëriñ bi bi muy liggéey liggéey bii nga xam ne màggal gi mooy añ bi mom dafa ni wa al khitmata ama jaysasin wa qalbuhu atmaraha min asasin serigne bi neena hama asasin bi mu taxawale yoonu murid di at mi jëkk ci fukkeelu xarnok ñent ci la wacc ba jekk nga xane bu borom dogale dogal bi du delu sax ci kër ga fukki at ak ñaar ak nangam suñ borom doore dogal dogal bi mu doore dem sëriñ mom fukki atak ñaari dogal bi wacc na ba jekk wa ñun nak dañuy nek ba magal des weer ñu diko doora wajal te touba ak mom wacc fukki atak kon bis la bo xamne ne ko jekku lu ci way def doyut sëriñ bi neena mi ngi koy soññee mi ngi koy fatali waye neena mi ngi fatali it nak njangalem bi ñu wat ko xel bu baax adina bi jaxasona kër kër jéeg riir meeg yëngatu yi bari na yu bees yi ñu fiy dégg bari na te ku am sëñ Tuubaa soxlaatoo lu bees nañ fàttaliwaat gone yi sëriñ bi dimbale ndaw ñi jàngal leen alxuraan jàngal leen si seen diine nàmpal leen ci sëriñ bi ndax yooyu yi tax sëriñ bi di wax mi ngi fi te mënee su ko fee jëlee lañ man mooy jéem a jëkkanteeg say ndaw defar leen xam ngeen rajo yi ak télévision yi ak internet yeeg yi mel ni ñoom dañuy gën a bari coow leek wax jeeg riir mi day gën a bari xabaar yi ko mat ak yi ko matut day gën a bari yi sànq waxtu di gën a bari kon nañ jëkkanteeg ndaw ñi bala balaa yoo yii di agsi ci ñoom ñu def ci ñoom lañu war a def ci ñoom mooy jàngal leen alxuraan jàngal leen diine yar leen ci sëriñ bi nampatal leen ci ku mos sëriñ bi dëgg dara dootu ko saf waaye leneen lu dut loolu rek dafa mel ne liy yàq moom am mbënn la moo xam ne daanaka ku woyof dana la yóbbaale yal nañ suñu borom musal ci barkeb sëriñ bi sëriñ baa ngi fàttali kilifa yi di leen soññ loowaat njaboot gi ñu bàyyi xel melokaanu murit melokaanu murit dara gënta metti nekk ci péncum Tuubaa ma jàkkaarloog jumaa ji xool gis gone yu góor yu seen tubéy di ruggiku teñ jàkkaarloog jumaay seen tubaa ji xool gis jigéen ju awraam nekk ci bitti mu sëq lépp mel ne lu kenn xamut fu ne kawar war ko fa ka asnamatil buxt ni ko hadis ba waxe woon sëriñ bi nee na yar bi mi ngi koy fàttali yoon wi yar bi miin nañ ñu naan kër gi yar bi ku fi jële yar ba woo fi dara ku fi jëlewut yar bi jële woo fi dara murit yar lañ koy xame Murid alquran lañ koy xamé murid qasida lañ koy xamé murid ndigal lañ koy xamé serigne bi nee yoyu lu àddina mën indi buñ ko wayefal buñ ko tiaxane ndax mom lañ am moy suñu ganjar, nañ ko fompat teye ko tek ko ci kanam kuñ mëna a ak luñ mën di maslaa loolu buñ ko walé ak murid du luñuy masla pastef la bakkan la Serigne tubaab bakkanam la ko yonent bi sallallahu alayhi wa jaraloon moom la ko boromam jaraloon keroog ba muy wax ak yonent bi sallallahu alayhi ci jàkkay Daarul Xuduus ni ko Serigne Abdul Ahad nettalee daf ne ko bakkan bi laa xamut la mu attan waaye jëm ji moom luñ ma teg dékku na ko te loolee mu waxoon la def jànkonteeg lu ne ndax suñ jëmm yi moom ci boppam boppam taxu ko woon di sonn sababu xaybati ya an allaha araada an anaala minhu jaha ak wa an mi shafian li xawmi man akuna xaadiman fii daw mi ñun ñii ñoo ko taxoon di sonn bëgg ñoo xettali te loolu amaat na firnde ca gànnaar sëriñ bi tawat na fa tawat joo xam ne mag ñépp dañoo àgg ci di wër mbaar mi nekk ci biir daanaka kenn dootu génn kenn xamatut looy def ndax tawat ji metti lu dul waxtu julli day mel ni sëriñ bi du xam fu mu ne bu doon nëgën dañ naan kiris su waxtu julli jotee rek mu bërbëri ba julli ko daal di daanuwaat ba yëf yi demee ba metti ba mu ëpp ci mag ñi am mag moo xam ne moom attanatu ko mu ne lii ma gis te ñun ñu nekk fii di ay murit yaakaar sëñ Tuubaa ba noppi moom muy jànkonteeg lu toll nii waa lu tey ñu jaayante jël suñu ruu yi jox ko ndax ñun ñëpp buñ demoon tam ne fi dara du sikk te bu demee ñun ñu des fi dara du fi baax ne kon nañ jël suñu ruu yi jox ko ba mu ne xaax rek la sedd guy ndekete dara yi sëñ bi kenn attanu ko ba mu demee ba nattu ba jeex mu tane mag ñi ne alhamdulillah mu ne mat na ko de su ngeen xamoon li mu doon de ab nattu la bu sama borom jëme woon ci njaboot gi muy ñi ko yaakaar ñëpp nee na bi ma ko xoolee gis dayoo bi xam ne bu dalee ci seen kaw ñëppay faatoondoo moo tax ma yanu woon ko sëriñ bee ñu defal lépp nañ ko jox suñu lépp te bañ koo booleek dara barki sëñ Tuubaa wasalaamaaleykum wa rahmatullah